yi mu ngi noonu mu nekk ay révélation yu am am solo waaye nekk ay analyse yu pertinent yoo xam ne kii di Sandiougu daan na ko si amal sorti président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi muy jàmm jàkkaarloog presse bi mu nekk ay question yoo xam ne daal ñu ngi ko doon posé mu nekk ay ay question jëm si ay personne waroon a jëm si réew mi waaye nag si ay personne la doon jëm mu nekk nag loo xam ne doy na waar loo révélation yu am solo nag moom Sandiougu daal na ko si amal nekk ay jàngat mu ngi noonu kii nga xam ne moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko premier ministre xam la ne nag weer wu ne quatre millions trois cent mille francs lay fay fayeeku président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ëppale na ko cinq cent mille francs di fayeeku moom quatre millions huit cent mille moom premier ministre Ousmane Sonko moo ko daal di xam xamle ñu nekk nag ay campagne yoo xam ne nag ñu ngi jëm si élection Ya, législatif mo ngi nonu ba tay si walum politique commissaire kayta may nan ko bàyyi neg niku mom mi nga xamne nak tegon nañ ko loxo baye nañ ko kon nak may nañ ko bàyyi ndigg niku naa ñibbi këram dalu ji mo ngi nonu mom président Ousmane Sonko jamono bi nak ñu ngay wëyel seeni ay campagne di tournée ñàkk dinañ ci ñew ci yeneen yi xibaar nga gën leen ko yaatalal ya ngeen def bu leen di fatte abonné bës cloche de notification bi aimé vidéo bi partager commentaire jaa ngeen jëf